If préparer en tout cas match en Bimouara jouer ak euh, AS premier match en Ndiambour avec euh, l'AS nous ñu euh, war jouer au stade Albouri de Louga le qui reçoit l'AS dimanche 3 3 janvier 2021 muy match en justement vous voyez Assane Diallo avec en tout cas ses faits et gestes pour expliquer euh, ñi nga xamante les joueurs le comment le bëggee tactiquement techniquement ak en tout cas les joueurs qui en tout cas devra euh, devront euh, se défoncer pour ce match important pour ce début de championnat bi nga xamante ni Ndiambour moom la entamé Fiti ci stade Albouri Ndiaye Louga Diallo le capitaine du club du Ndiambour de Louga. qui en tout cas est en train de faire ay ay ay euh, moom mooy ay exercice euh, yi muy def ah hein, exercice am yi euh, abdominaux ah yëpp pour en tout cas mën a taxaw parce qu'on sait que léegi latéral fixe amatul ah latéral de métier yi léegi da ngay génn di def les centres te loolu c'est son métier Abdoulaye Diallo le capitaine de l'équipe vous voyez derrière lui Bougazelli le recrue du diambour cette année mi ngi noonu le directeur technique régional Ngiran lui aussi qui chapeaute toujours Assane Diallo pour Andang Mom, ci li avec ses explications euh, en face de euh, Matarwa également qui fait partie de du staff technique euh, Mohamed Ndiaye staff technique en tout cas les techniciens match une saison difficile hein, il faut le dire avec Mbassmi sans les supporters vous entendez en fond sonore asiko yi nga xamanteni ni moom mooy asiko waa jëwriñ euh, en tout cas namoon nañu loolu ci stade Albouri Ndiaye malheureusement on l'aura pas euh, cette saison peut-être bu mbass bi jeexee dinañ ko am les joueurs ils sont là ils sont là euh, un peu concentrés pour voir en tout cas euh, li nga xam mom moom wara duggé war euh, match bi nga xamanteni mom moy match Yahya Yahya hein, qui a rejoint l'équipe du Ndiambour le staff technique du Ndiambour Yahya Yahya Gueye hein, on le voit on le voit. Euh, il s'appelle Moïse Alexandre Guiward, le meneur, en tout cas le, défenseur, le, milieu défensif du Ndiambour, Moïse Alexandre Guiward, qui vient de terminer pratiquement trois ans, Bougazeli, le recrue de Génération Foot. Un bon euh, excentré droit, Bougazeli, qui a fait match Ndiambour avec ses prouesses, qui a fait en tout cas un bon match. Bougazeli qui est là, euh, mais le groupe est complet. Euh, euh, pas de pas de pas de pas de pas de euh, de pharmacie hôpital pas en tout cas blessé ci groupe on même dit que ñi blessé le préparateur physique du comment faire pour jouer mi xalé physiquement parce qu'on sait que l'AS c'est pas une petite équipe hein l'AS une très bonne équipe prête physiquement tactiquement techniquement Recruit, yi des def et en attendant le match important s'il a le président de la section football bu Ndiambour il est là lui aussi en train d'observer en tout cas euh, ñi les joueurs du Ndiambour qui sont venus pour le pour la dernière séance d'entraînement Il nga nous a euh, match contre AS AS Pikine regardez-le avec ses gestuels Ngirane il fait partie des meilleurs entraîneurs du Sénégal avec beaucoup de diplômes ah diplômes yi entraîneurs yu mag yëpp yore la mi ça veut dire que le Ndiambour en tout cas am un staff un staff technique un staff technique euh, nous envie envie envier nous, wala war envier ben équipe bu Ligue 1 bu nekk fiti, euh, ci Sénégal Nous avons les instructions de ngiraan euh, les instructions de Ngiran, qui en tout cas un peu fait du gestuel pour parler aux joueurs en tout cas ci seen assise qu'est-ce qu'ils devront faire leur placement taxawaayu joueurs appel de Balil. fan lañ wara taxaw les lignes yooyu yëpp ngi mi ngi koy expliquer euh, li nga xamne moy mooy moom parce que dafa bokk également ci encadrement technique bu Ndiambour c'est le directeur c'est le directeur technique régional euh, il est chargé en tout cas petite catégorie ba ci kaw yooyu yëpp moom mooy kilifa bi nga xamanteni ni moom mom moko moo ko euh, Ngirane Assane Diallo les joueurs qui sont là on reconnaît Oscar Fawli Keita euh, très très influent dans le jeu du Ndiambour Paul Keita euh, nekkoon Macédoine daou euh, ren mu fait que si les joueurs du Ndiambour sans Drogba sans en tout cas le le mythique dossard numéro 10 du Ndiambour regardez ces joueurs du Ndiambour très confiants pas de stress pas de stress pas de stress Bougazelli avec son sourire Ablaye Diallo peut-être une passe les joueurs du Ndiambour qui euh, ont déjà fait euh, la connaissance bu pelouse bu stade Al hein, parce que depuis ñu jógee Gambie dem nañ stade d'hôtel c'est vrai bob ñi ngi réfectionner euh, le stade Alboury mais il ba légui ñëwaat na Badara Diallo qui revient de de blessure il est là Badra Diallo mo taxaw avec euh, un peu des des des des dreadlocks des des rasta Badara Diallo. Euh, Mohamed it euh, ñëwaat euh, Njàmbur ngi technique la gis nañ même au niveau avec les Juventus de Turin les Barcelone nous ñep gis nañ nu euh, mais les ñuy basket peut-être c'est des tactiques euh, que les entraîneurs euh, pourquoi ils font ça c'est mobilité en tout cas on sait pas nous on n'est pas technicien on est <laughs> tout simplement des reporters Nous avons yam reportage <laughs> en attendant le match du Ndiamour, on rappelle que dimanche on va recevoir ici à ah Amdi euh, Amdi Ndiaye, Amdi Ndiaye, le meneur de jeu du Ndiambour, le petit Amdi Ndiaye qui peut faire la différence à tout instant. Euh, mi ngi noonu moom la ñu les joueurs ñu ngi noonu ba léegi di mel ne ñuy euh, volleyball bu doon bu doon bu doon dafa am ay volleyball mais c'est des tactiques c'est des tactiques. Nous xamante Diallo avec un un un un œil boo xamante regardant Sidi Diakhaté qui nous vient de CNEPS de Thiès qui a fait les beaux jours. Euh, Fille ak r de Thiès phase nationale Mohamed Kisnienko, euh, qui fait partie des patrons de euh, cette équipe du Ndiambour surtout ci milieu de terrain physiquement physiquement on doit les préparer les jours du Ndiambour physiquement ils doivent être prêts physiquement les jours du Ndiambour c'est ce qu'a compris le préparateur physique du Ndiambour nous tirons central pour équipe sous les yeux de Akessila, Niran, sous les yeux de Hassan Diallo Matarwa Dundoy et de Mohamed Ndiaye Prophète qui en tout cas essaie d'entamer euh, nous, noonu euh, gardien de but c'est l'entraîneur des gardiens de but qui a fait les beaux jours de l'ASC Teranga Sao, salut, je crois bien César nous nañ terrain les jours du voilà jaune contre bleu pour faire euh, quelques mises au point Badara Diallo il est là il n'a pas disputé le match du contre euh, la ligue de Saint-Louis mais c'est un bon joueur quand même c'est un bonjour, Diallo, avec Amni au milieu de terrain, avec, euh, euh, je crois bien, c'est euh, peut-être, mais au fur et à mesure Nidem, on l'aura, allez voir, attention, il va partir à gauche, qu'est-ce qu'il va faire Le jour du Ndiambou, il va s'appuyer sur un partenaire, c'est toujours les jaunes, les oranges qui ont la balle, il se dégage, contré, sous les yeux des nombreux supporters, Masbouka, le bagagier, le bagagiste du Ndjambour. Euh, euh, mon toog de ci le sol euh, maillot noir et je vois également tous les supporters qui ont fait le déplacement ce soir pour regarder l'équipe du Ndiambour C'est ainsi Amadie, mon frère Ama qui aime beaucoup l'équipe du Ndiambour Ama il est là lui aussi Badara Diallo regardez-le admirez ce beau joueur Badara Diallo il s'appelle un bon joueur, euh, un milieu terrain du de Louga qui revient de blessure et qui peut apporter beaucoup de choses euh, avec euh, l'équipe du Ndiambour de Louga. Voilà. Mustapha, lui aussi qui est là. Les bleus et les oranges qui font un peu les deux camps. à Diallo avec euh, oh, yeah, oh, yeah, Cheikh Tamsir. Euh, Tamsir mi Nessan, nous sommes ñoom des supporters et des anciens joueurs du Ndiambour les et les Dia on les voit euh, ci Ndiambour Burkidem, ti dimanche gi Taïdi. ji vendredi également on les voit au stade Albouri Massar Nous ñëpp gis apporter leur soutien moral psychologique à cette équipe du Ndiambour aux joueurs du qui devront affronter on le rappelle dimanche inchallah trois Moukri et Gueye également qui sont là Moukri je euh, suis ci jambouri, njàmbur yi Boukry waaw bokk euh, l'équipe du jambour, c'est les supporters qui sont toujours scotchés derrière euh, leur équipe et tout Louga est derrière l'équipe du jambour de Louga pour pousser en tout cas cette équipe la seule régionale la seule en Ligue 1 qui qui région de Louga attention Ablaye Diallo Diallo qu'est-ce qu'il va faire il va tirer directement mais ce n'est pas cadré il faut en tout cas réussir ces gens de tir Mbayad il est là mon frère Marem Fall Nyom Egoudouba, Nyom Nenou. on va euh, le Diamono on va également Ablaï Diallo les supporters du Ndiambour qui sont là sans le président Abbas euh, qui n'est pas venu aujourd'hui pour voir euh, l'entraînement du Ndiambour mais il est bien représenté il faut le dire Abbas là le président section football qui vient apporter sa contribution dans le jeu du Ndiambour parce que Ndiambour Warnam, un bon jeu un, projet, un projet de jeu boubar pour m'en affronter cette équipe de l'AS très entreprenante une très belle équipe de l'AS également qui vient à Louga pour prendre les trois points il faut le dire aussi mais ce sera peut-être sans compter avec euh, les potages de Hassan Diallo les protégés qui devront faire de leur maximum pour euh, en tout cas gagner ce premier match même si Hassan Diallo qui dit que c'est un match euh, Boubacar Boubacar fait partie du comité de de ZAC Diabour Aboussar nous ngi noonu ñoom ñëpp ñëw nañu voilà euh, Cette année, li nga xamante ni moom euh, euh, l'entraînement le dernier avant le match de Pékin Assane Diallo qu'est-ce qu'il va faire peut-être c'est lui qui va tirer le coup franc <laughs> l'entraîneur du Ndiambour c'est lui qui va tirer le coup franc suis arbitré en même temps dafa mel ne hein ah, moy compter noonu ay pas arrière l'aine. arrière l'aine. arrière l'aine. defe naa neuf pas la war la compter Assane Diallo qui est arbitre on rappelle qu'il a été arbitre international autour du Ndiambour autour du et cela doit être en tout cas le faut le comité directeur autour de l'équipe du Ndiambour ni maire ñu le dénominateur c'est le le coup on va suivre sur la barre transversale c'est pas bien cadré hein? il faut bien nous regarder les tirs les tirs euh, euh, les balles arrêtées oui il faut Assane Diallo ñëwaat les balles arrêtées parce que euh, devant l'entrée de la surface de réparation mais les instant bi gis balles arrêtées c'est important on doit faire ça à l'entraînement en tout cas def ci joueur, yi ñu xam il va tirer ça frôle un peu la barre transversale job, c'est mon frère il est là lui aussi pour euh, regarder le dernier entraînement en 10 ans également nous <laughs> avons xam hein, par rapport à euh, équipe bien joué il repart il repart à gauche les bleus qui vont à l'assaut des oranges bien joué Bougazili qui va essayer peut-être de euh, orienter à droite le petit centre Caféage, la balle qui va sortir la balle qui va sortir toujours ñom Maguette ñop les supporters du Ndiambour ñop ñëw nañu pour voir l'équipe voilà Fagnon de Louga la seule et tous devront être euh, derrière l'équipe du Ndiambour maa koy wax sank ñi nane frondeur ñi nane membre comité directeur yi maire ñi nane ñi nga xam ne dañoo ci ni Ndiambour di démé <coughs> ñop c'est l'occasion maintenant de revenir ñop bokk nday bokk bay le seul dénominateur c'est le Ndiambour def naa ni ñaara man kenn te ñett du et ñepp ñooñu bu ñu ñëwee incha l'équipe va prendre en tout cas la coupe du Sénégal la coupe de la Ligue ou bien le championnat oui mais il faut ñepp également ñëwaat ñibbisi derrière l'équipe du Ndiambour Bougazili qui joue un peu aujourd'hui comme milieu de terrain comme euh, en tout cas qui euh, euh, nga xamanteni mom les dernières passes hein euh, na ni Bougazili tay lool lay xaw a joué ci entraînement bi donc ci li hein. voilà c'est les bleus qui vont repartir euh, qu'est-ce qu'il va faire il va s'appuyer <coughs> sur sa défense sur sa défense ça joue bien pour Ablaï Diallo le capitaine du Diambour qui s'appuie sur un partenaire c'est toujours euh, le jeu perte de balle est pour euh, le portier Lindambour Ibrafal Diakhaté qui a joué euh, l'autre jour contre la ligne de Saint-Louis. Ibrafal Diakhaté, c'est toujours la défense euh, des Oranges qui vont dérouler. Ambidiaï, bien joué, la passe, la tête de la défense des Bleus. Sidi Diakhaté milieu essuie-glace bien joué Ablaye Diallo pour Sidi Diakhaté bien joué Sidi la passe en profondeur il va partir peut-être il n'est pas en position d'ordre. attention et c'est un penalty peut-être c'est un penalty peut-être c'est un penalty peut-être ah oui il n'est pas content Il a fait un match dans la zone. À mon droit il va bi taper. ko tapé Il a fait un match officiel da ngay carton jaune Khalifa je crois que c'est Khalifa qui a fait ça oui on a fait un match officiel da ngay jël carton jaune regardons le ralenti Mais non, il va partir seul à l'entrée de la réparation il est bousculé par Khalifa c'est un penalty c'est un penalty indiscutable c'est un penalty indiscutable et Khalifa qui n'est pas content Beaucoup de defati conseil bu Malay lay jox la arbitre sifflé boo jëlee bi d'or ko ci kaw regardez la passe de Sidi Diakhaté admirez cette passe de Sidi attention Regardez, regardez le ralenti. Et c'est un penalty pour les Bleus. Indiscutable pénalty pour les Bleus face à Ivre Fall euh, Diakate. Il, il, veut se faire justice euh, lui-même. Mom la gagne nous penalty mu jël bal bi taxaw contre-pied parfait pour euh, Bamba Dieng waouh, waouh, waaw douane la nekkoon <laughs> L'idée de bëgg kon AS Pikine bëgg naa nga bëgg naa lii bii bii bëgg naa ko ci ñaar wala ñett <laughs> dina ma neex bëgg naa équipe buy dugal waaw waaw bëgg naa équipe buy dugal de et c'est l'ouverture de score pour les Bleus on regarde le ralenti il va marquer ce but contre-pied parfait pour l'attaquant du Ndiambour, Mangay Mbalak, Ibra Fall <laughs> c'est vrai, hein? euh, ils sont euh, très complices les joueurs du Ndiambour et ça c'est important. Ça c'est important, la complicité de l'équipe. Quand on parle d'équipe, la femme complicité et gis nañ ko ci équipe Ndiambour bi bumo mu am xiiroo bu mu am ŋaayoo yéen ñëpp bokk leen ndey ak baay loolu moo tudd équipe way way bokk leen ndey ak et ça va en tout cas euh, payer sous les yeux des nombreux supporters qui sont venus faire ce déplacement pour pousser leur équipe euh, à la gagne et pour la préparation de ce match important face à l'AS Pikine Diambour qui reçoit ici au stade Albouri de Louga <laughs> Rabou Diambour, qui ngi qui le Rabou du <laughs> il est venu voilà il est venu le Rabou du justement c'est un coup franc euh, pour les Bleus, un dirigeant de l'ASC Diakarlo même les clubs les ASC sont venus Gisnaf ASC Diakarlo gis ASC Diamono, Gisnaf Pench, Gisnaf Progrès Gisnaf Dekendo, Gisnaf Nyup, ah, toutes les ASC derrière l'équipe euh, du du ça ça ça ça ça peut payer ça peut payer ça peut payer Nous, nous, eh, qui a été titulaire euh, l'année dernière dans l'équipe du Ndiambour. Pape Djibril Doy, il s'appelle. Voilà, c'est toujours les oranges qui veulent revenir au score. Il fait la passe à droite. Qu'est-ce qu'il va faire Waouh, waouh De ngay le Pour match officiel mën a les carton jaune. Voilà, day Koufran, Regardez, regardez ce beau geste. Regardez ce beau geste. Regardez ce beau geste de ce joueur du Ndiambour. C'est important. C'est important. C'est face technique. Hassan Diallo, qui est très content par rapport à ce joueur, hein. il la tapote comme ça. Il le tapote comme ça. Ah, Hassan Loum, non, il passe. Voilà. <laughs> ñun xamul li ngay def xam nga yow comme que technicien nga boo xam ni sa xam-xam jéggi na réew mi waa gaucher moo koy ba un coup franc rentrant un coup franc rentrant qui va tirer la tête de la défense de des bleus la tête de la défense des bleus la tête de la défense des bleus et qui va da tirer tirewaat voilà da koy tire lépp ci entraînement là pour voir waa kay nee na ko pas passe là. peut-être kii ah, mais sama waa ji yow tamit doo cadre bal bien. ah <laughs> nañ ñëwaat nañ ñëwaat dañoo war a ñëwaat faire la même chose way dañoo war a ñëwaat faire la même chose parce que on est en match d'entraînement et lii dañ ko war jang pour bu ñu demee ci match officiel nous pouvons réussir nous nga waa ji fa mu taxaw waa jaa nga taxaw le pied gauche qui va peut-être tirer mel na ne élan bi mu jël daf koy d'or rentrant le coup franc voilà, rentrant et c'est toujours la défense des Bleus, Moïse Alexandre Guiwad qui sort la balle, le milieu défensif du Ndjambour. Rappelé par son gardien de but, Pabir Bildoy, pour revenir. Attention, le dégagement de la défense, ça revient pour les Oranges qui perdent la balle. Et c'est pour les Bleus, Bogazeli, Bogazeli, Bogazeli, la belle protection de Bogazeli. La belle protection de Bougazeli et ça va revenir Moïse Alessandre Guiwad pour sa défense. On revient jusqu'à Pabdibril Ndoy. Pabdibril, Moïse. Bien joué. Bougazeli qui joue aujourd'hui comme un euh, milieu de terrain, je vous l'avais dit. Tantôt, à l'appel de Bougazeli, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Cher Touré, qui est là, le chargé de communication du voilà, c'est la fin de euh, cette séance d'entraînement dans le terrain. Abbas, ah, il est là. Abbas qui est là, le président euh, des supporters du Ndjambour, qui vient fraîchement remplacer euh, Mohamed Diaou, qui fut en tout cas le président du comité supporter du Abbas Mofinek Legui. Abbas Mofinek Legui. voilà. Abbas Mofinek. justement euh, les joueurs peut-être euh, dans war a toog Wow, waaw danoo a dans waxtaan danoo war dans toog waxtaan danoo On a on aura euh, bu faire les dirigeants qui sont là. bi séance bi jeexee nag am xam euh, euh, ci li nga ni moom euh, match bi ñu war jouer le dimanche un match important Arkesila Silla président section football bi wax Diallo également qui a pris la parole Tamsir du supporter bu Ndiambour jël na fa parole comité directeur comité des supporters également jël nañu parole ñoom it wax Samba Lele Dia un ancien joueur du Ndiambour qui est revenu moom avec Modunar, Naar moom ñoom tamit jël nañ fa kàddu wax fa jox yi en tout cas doole un hein, revigorer leen joxaat leen jom wax len ni ngi avec Dieye avec euh, Djibi également Massar Diop en euh, casquette de euh, ancien joueur également qui a parlé aux joueurs ngiran en tant que DTR lui aussi qui a parlé aux joueurs ñooñu ñëpp waxtaan nañu ak joueurs yi et surtout en tout cas le coordonnateur Djibi Diallo qui était présent ci séance d'entraînement bobou sambo Diop. Boubacar ak euh, Cheikh n'est-ce pas suñ paree aussi ben jour si yéen jël cadeau. ñun moom jëriñu jël kàddu ñun instant bi ah. euh, voilà bon sinon li ma yokk ba président je m'excuse ah c'est pas pour les autres c'est pour yéen yéen a ko moom li may wax hmm. njàmbur suñu njàmbur la ñun ñëpp c'est pas important les postes parce que dama koy wax supporters yi bi ñuy dem AG na ne partez pas à assemblée générale di di voter c'est pas bon c'est une cassure ñëpp bokk njàmbur que ji jiite wala moo jiite c'est pas important force am ku jiite li ngeen bokk yoon ñëpp ñëw leen ñu defar ko mu baax transcender leen différence yi fële ngeen ñëw jàpp seen équipe mu dem ñëpp a xam Louga bu ñu yoroon ay taalibe ay ñu jàngul foobal ñëpp jàpp Louga day gañe dama ne njàmbur fii ñëpp xamante noonu dëkk bi bu nekkee benn ñëpp jàpp quelle que soit qualité joueurs yi dañuy gañe donc loolu loolu lii ngeen am Nous sommes tous les positif positif encore pour l'intérêt uniquement du club Ce est pas l'intérêt de mort, ce n'est pas l'intérêt de Moussa Diop Moussa Diop day dem man jamais équipe donc leen différence pour une année nous merci beaucoup. merci donc nous donnons la parole au. Euh, asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant mën naa ni fii yëpp ñi fi taxaw ñëpp bu dul ngiraan mii kenn jiitu ma si njàmbur fii te ñeme naa chaque année du ñu topp njàmbur lu ñu bëgg ñun njàmbur moo ñu ñun njàmbur ñu ñor dañ ko gëm fu mu dem senegal Sénégal ñëpp ñoo nga fa bon actuellement gan amu fii nous sommes tous des locataires Nous njàmbur moo des ci Nous sommes moo ci nous..! Nous des dem ay jamono bu nous Nous football yi le dans le Gotha du football africain Nous sommes dem da ngay am da ngay da ngay fier pour sommes bon football match de football tout qui tamit mais actuellement nous débuter championnat Nous débutons débuter lépp ci patience la lo fa togul xaar ko du la fa fekk da ngay tok xaar ko ba mu ñew fekk la fa ñun ñun nak euh, ñun ñong seen ginaaw ñun ñepp ñun ñong seen ginaaw Louga ku ko gis mu ñew ak ku ñëwul mi ngi seen ginnaaw tout Louga coach dafa am lu mu wax ñi duñuy dem ñi duñuy dem ndax am na ñeen ñu fi jaaroon nekkatuñ fi tay ñun ñoo fi nekk ak ñi fi nekk. mais lu ñu dem dem dem dem dem du tee du ñuy bokk njàmbur ñu njàmbur moo des si ñoom kon nag man li ma leen di ñaan mooy leen la main dans la main bokk leen day bokk bàyyi ñun supporters yi ñun dañ nekk seen ginnaaw ngeen bal ñu àq nag merci beaucoup wasalaam. salaamaaleykum bon ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu euh, ñu ngi nuyu waa Azac Ndiambour di nuyu sunu dirigeants yi tamit di nuyu sunu enfants yi di nuyu tamit supporters yi euh, maa ngi wax si kàddu président Abbas bi nga xam ne mooy président comité supporter Azak Ndiambour euh, di joxe tamit message supporters yi bon li may wax mooy ñun fi nekkoon démb ñu ngi fi waat tey euh, suñ ko suñ ko yokkul duñ si wàññi dara li naroon mooy mas gannaaw suba bi moo doon balaa deux heures ñu remplir stade bi mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam. li xew Sénégal ñu ñëpp xam nañ ko dañ koy nangu mais teewul ñi ngi seen gannaaw que ñi ngi leen di jàppale di leen pousser que ngeen ngeen indi ndam li muy première bi ngeen xam ne ngeen ubbee ko njàmbur jaar fi jug ba faawu kon li ñu def ñi ngi leen di ñaaxaat di leen soññ nekk seen gannaaw mosuñoo des gannaaw yàlla nag noonu la bëggee ay mbirom waaye incha allah am na lu ñuy lijjante di jox supporters yëpp rendez-vous complexe su fekkee loolu sotti na su sottee daan ko jàllale suñu page Facebook. dañoo bëgg a def foofu benn écran ñu ñëw foofu seetaan fa xaar équipe bi supporté ko ñi ñaan yàlla defal ñu ndam ñu ngi seen gannaaw ñu ngi leen di ñaax lu ko gaal ñëpp ñu ngi seen gannaaw vraiment supporté kontaan nañ seen xel dal ah yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu cet may ñu ndam di gërëm suñu dirigeant yi ak anciens yi di gërëm supporters yëpp di wax supporters yi nag carte membre supporters yi génn génn na ñu ñaan ñëpp 2000 francs lay jar na ko ñëpp jënd pour jàppale supporters yi jàppale njàmbur merci jërë ngeen jëf. man dama timide mosu leen dégg sama baat te xam naa na ñu bari ñoo xam ne tey la ñu mos a dégg sama baat. waaw waaw bal bi moom macha allah. moom ma ma ko jox nag sama sama jeune frère samay doom. <laughs> te li ma leen di ñaan rek nag mooy. bu soobee yàlla bu subaa ñetti bunt ñu leneen lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñett rek. leen ñu kër gi ñett yoon dañu dem suñu mu jax tàkk ñu démarré noonu yàlla defal ñu jàmm parce que eh, xam xam naa ne stade bi def nañ fi ay jaloore yoo xam ne yi ni ñoo parce que ñi fi juddu xëy na ñi fi juddu quatre-vingt-quinze parce que man dernier match bi ma football fii quatre la booba maay capitaine u Ndiambour en plus maa ngi takk euh, brassard u Ndiambour ngiraan ñu ñëw ñun xale yëpp waa Louga lañu ñu ñëw bëgg Louga lool Louga jaral ñu lu ne nag mais ñun ñëpp bu fi dajee tey bëgg Louga moo tax Si vous aussi bu ngeen que si c'est parce que da ngeen bëgg Louga parce que vous Louga boole bokk Louga ñëw di défendre couleur Louga rek doy na ñun ñëpp li ñu bëgg ñun vous li ñu bëgg jëm ci kanam jëm ci kanam ñun ni ñu ans après vingt ans am na xam avez jibi gis ñoo ngi football 25 ans après ñu ñëw di daje di donc loolu juste pour motiver leen wax leen ne témoin bi ñoo ngi koy jox ngeen dellu parce que def nañu mais loolu lépp na mais léegi histoire ci seen loxol histoire nostalgie bi nit ñi amoon bu ñu gisee naan nangam ak nangam na fi gagné ngeen ko am possibilité am ngeen ay dirigeants yu nekk seen ginnaaw di jox ngeen def entraîneur football ngiraan moom moo tax ñu def ko mënoon nañoo dem fu ne ngiraan amul Louga amul senegal koo xam ne kii mën na taxaw di wax football te ngiraan mii du taxaw di wax ngiraan moom moo leen yor Ndiaye dañoo football ak moom moo ñu magoon xëy na mais football nañoo ak moom ba mu ñëw nekk entraîneur Makhtar Ndoye sunu grand la Makhtar Ndoye ñun bu ñu bëggee football grand yu mel na ay Ndiaye ay Makhtar Ndoye ñoo tax ñu bëgg football mais nak ñoo ngi leen denk loolu lépp parce que man bu ma demee ba léegi sama doom di football parce que sama doom sàmbaleele man lañ ko tuddee papaam moo nekk Daouda Diba man lañ ko tuddee sàmbaleele bu ma déggee muy football Ndiambour voilà xam nga ne kooku man fierté la ci man mais nag voilà donc xam nga bu ñu demee di retrouvé wu ñun ñëpp benn fin bi la donc li ñu leen di ñaan mooy que ne ngeen gën a góorgóorlu ñëpp ñoo ngi seen ginnaaw li ki wu supporters yi wax mooy que ne voilà tendre nañ leen témoin bi def leen li ngeen mën amul pression xam nañ ne mën ngeen ko attan ngeen ko te di ngeen ko def en plus donc ñun ñëpp ñoo ngi seen ginnaaw di di leen remercier bu baax merci beaucoup. merci merci fu ko lépp lépp lépp lépp ma newoon suñu ma lépp ñun ñëpp ma newoon libéraux équipe bi ñëpp libéraux leen gaa libéraux nag mais léegi xam nga lan la artiste comédien la léegi dañ koy bàyyi la mu transmettre message assalamu asalaamaaleykum. gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag maa bëggoon a sax dellu nekk gone ndax lii rek dafa neex parce que ni ngeen toogee nii yéen yéen yéen yéen yéen dajale ñi fi taxaw ba pare ñu am ci yéen yaakaar te dafa am loo xam ne li buñ ko dee wax buñ nee jour dafa am lu tax jour amul lu dul ay tànkam man loolu rek laay foofu rek laay waxee bu leen dara dépassé jour amul lu dul ay tànkam te yéen yéen a fi nekk actuellement yéen lañ yéen rek la ñuy seetaan lu ndaw rek boo ko defee am li nga bëgg te yéen yéen a opté ne jour ngeen amatul leen amul leen métier leen def lii rek ngeen am du dëgg kon yéen yéen a ci toll kon ñun ñi ñëpp dañoo bàyyi suñu lépp bëgg leen a jàppale xoola man ay njàmbur njàmbur laa leen xoole waxuma ay ndakaaru gi dama ñëpp Louga lañ dëkk xoola ay njàmbur njàmbur rek laa gis sama xol dafa sedd ci yéen te ñun dañoo am ci yéen yaakaar te gis nga li nga commencé li li ngay jeexale moom nga war a commencé li ngeen indaale woon dafa war a nekk ci li dafa a nekk ci seen tànk yéen dara wur leen a dépassé da ngeen a war a xam ne yéen seen tànk am lii nekk seen tànk dara wuru ca rocceeku affaire bi nag dafa neex du dëgg am na loo xam ne ni boo ko toppee mooy dootoo jour ñëpp ko bëgg nag du dëgg non non dama leen di expliquer rek am na am voilà du dëgg kon bu ñu leen jëlee fenn indi leen loolu na ngeen koy sàmm ci seen i tànk basketteur bi loxoom la am mais yéen seen seen i tànk ngeen am du dëgg loolu na nekk ci yéen parce que ñëpp dañoo am ci yéen yaakaar kon yaa yàlla bu yaakaar yàqeeku du dëgg ñii ñëpp xoolal commencé gul ñëpp dëkk bépp ngi leen di xaar kon li nekk ci yéen ci départ wala dafa war a dem ba ci fin bi parce que affaire bi jeexagul ay saison yi saison la xam nga du dëgg kon loolu dafa war a nekk ci yéen yaakaar jooju yàlla bu mu yàqee ko du dëgg kon sàmmu leen seen bopp bu leen dara dépassé bu leen kenn boole gis nga équipe benn rek lay doon benn jour rek la. du dëgg da ngeen di jiital kenn rek mu nekk topp ci gannaawam du dëgg force chef am li mu leen wax rek mooy lu baax jour yëfi jour rek lay def récupération football récupération football amul leneen jour dara xajul ci moom nag lu leer laa leen di wax dara xajul ci moom li ma gis jour yi di ko def léegi actuellement nii loolu nekk du jour man mën naa ko mais jour dañ koy boo dégg ñu naan diw jour la mooy ku te ñetti match ñeent juróom yu nitoo mu nekk ci say tànk blessure rek moo lay génne ñi ci nees dañu nekk ci tuus bi di mu ñam yi ndax bëgg a dugg mais ñu ni la jour na nga xam nga dara newu ci say tànk ngay diw muy nii bëgg ñoo nax xale yi nag bu leen leen topp du dëgg ñun ñoo ci ñoo ci toll bàyyi leen kook ñun yéen jour ngeen man lu leer laa leen di wax xam naa li ci du dëgg xam naa li ci ne ñi yàqu ñëpp loolu moo leen yàqal du dëgg yaakaar nag dafa fort waaw comme kii sama gaay na sama wóllëre la du dëgg gars yi barke maam Cheikh Rafal am naa ci yéen yaakaar te xoolal ku nekk boo départ say tànk maa ngi koy xool barke rasulaay lu ci wàññi ko xam naa ko ku ci nekk xam naa ko ku ci nekkul xam naa ko xoolal fubal du fenn fubal kenn mënu cee tricher du dëgg gars yi li nekk ci tànk ngir yàlla war a suul yi bàyyi leen ko ci barke maam Cheikh Rafal ngeen am résultat ñëpp gis ñun ñëpp ñu bëgg ngeen bëgg xoolal dëkk bi ngeen di défendre moo rëy du dëgg kontaan nañ ci yéen nag trop barke rasulillahi macha Allah. j'ai fait quatre ans sama entraîneur a ngi nii toog taxaw ma naka seere quatre ans titulaire parce que lan bëgguma ku ma yàpp njàmbur bu entraîné suba gi suba gi gi daan def pour wax leen un compétiteur nan la war mel li ngeen am ñun amuñu ko ah amuñu ko won tay am nga ko am ngeen condition yoo xamante ne gën suñu yoss mais il faut ngeen gëm seen bop xam li ngeen bëgg xam fan ngeen jëm bu len yaakaar rek ci entraînement yi ngeen di def fi dedet bu ba fi ngeen di yem da ngeen ci def plus ngeen mëna joggé fi ngeen tollu beneen bi moy récupération am lo xamantene walu entraîneur bi mais daf len kay wax lu gis nga. joueur bu joueur bu tactiquewul mën ngaa bàyyi football il faut tactique tactique mooy lan foog nga bàyyi sa entraîneur xel li mu lay wax lan la bëgg li mu lay inculquer sa biir si si entraînement atay da nga koy retrouver dans le jeu mais fekkee da nga koy def ko répéter dans le jeu mën ngaa bàyyi football loolu la ñuy wax joueur bu tactique donc man li ma leen di ñaax si si côté boobu mooy il faut être tactique moo ngeen bàyyi xel si seen entraîneur li mu leen di santé surtout surtout loolu pour def ko nak moy da ngay gëm sa bop sino ben match ngay am ñaari match ñu ne non ki ne patak li mu bëgg mu ko defal parce que entraîneur jangul ken kenn ki contrôle ah jangul fi ken contrôle da ngeen am man contrôle man seen lepp ñew taxaw mu bolé len lan ak mom xalaatam lay jël tactique am lay jël tek len ko yeen su ne ko mën répéter lu mu jëriñ bon donc il faut être tactique il faut être tactique bay len xel ci entraîneur li ñu leen di wax bay xel ci séance yi def entraînement pour nga mën ngeen ngeen bëgg répéter dans le jeu au cours des matchs donc loolu comme yéen a ngi yéen a ngi si si boobu mais dañuy dañuy ci ñaax ngeen gën ci góorgóorlu di wax ne vraiment man maa ngi seetaan euh, Facebook di gis yi yi di def yëpp yi gars yi di dugal yëpp maa ngi koy suivre parce que man Njàmbur mooy sama équipe Njàmbur mooy sama équipe donc lépp dama koy suivre suivre naa ba xam ne ba xam yi am na lu ñu bëgg ci yéen yal na leen yàlla jàppale ngeen gëna gor gorlu ngeen gëna gëna gor gorlu dina wax nak gis nga supporter yi supporter yi ñu leen may dara de parce que dañu gëm seen équipe man lo daf ma neex njàmbur dañu gëm seen équipe dañ ko gëm dañ ko gëm dañ gëm seen équipe supporter dañu gëm seen équipe ma la dundee ñoom pendant 4 ans ku ci gëmul sa bop nak da ngay génne ku ci gëmul sa bop yeen ñi da ngay génne amna yo xamni xam ne nañ leen fi lu def nañ nenk

li ñuy amul hasard hasard amul man gëm naa ne hasard amul njëkk naa Sénégal njaambur ñi ngi fi tey ñi ko mujj a gagné ñi ngi fi tey kon ce que amul te lii vingt cinq ans nii ñu koy wut mënuñu ko am ñi ko mujj a gagné ñi ko njëkk a gagné ñi ngi fi génération ñoom Matandoo ñoom Jibi Ndiaye ñi ko mujj a gañe man ak ñoom Mor la kon hasard amul kon def naa ren ça sera la bon defe li ngeen ci war a def ren def naa ni lii rek war na ne ni équipe bi war naa delluwaat ci niveau bu mu nekkoon. yéen la les confiance en vous. ci seen ay beaux yeux. dunoo déniché un peu partout dajal ay talent ngeen am staff technique bu dëgër bu wóor léegi lu ci des. mooy engagement ak détermination rek ñu àgg ci kaw. delluwaat équipe fu mu nekkoon gagné trophée te def naa ne ren ça sera là-bas incha allah. de nekk a huis clos loolu nag du du du du du du njàmbur décidé loolu c'est au niveau national c'est au niveau mondial mais li muy nekk nekk huis clos jàpp leen ni match bi waa Louga yëpp dañ koy seetaan parce que réseau yi dañ koy wane télévision yi dañ koy wane fii au niveau local ba pare gars yi daañu dem fu ne pour seetaan match bi. daañu taxaw ci kaw miir yi daañu def jour bu ne na jàpp ni cinquante mille supporters mi ngi si xool parce que yéen wàllu woo yéen leen jaral loolu. équipe bi am na ay difficultés année yi passé gañewul mais tout ce qui est possible ñu koy def pour pour gagner parce que cette fois-ci vraiment on veut que ça soit la bonne quoi te ni mu tàmbalee nii am nañ ci yaakaar euh, soo gisee ministre bi doole na temps yi ay conseils spéciaux yu bees. ay doomu dëkk lañu doomu dëkk bi lañu ay gaay bëgg njaamur lañu ñoom ñëpp ñuy taxaw daa leen ko présenté muy Samba Diop xam ngeen ko déjà am ñu xam ci yéen Bouba Kerba am na ñoo xam ci peut être xamu leen ko da ñu ko gën a miin ak Cheikh Lay ñi ñëpp euh, Cheikh da cee ancien joueur njaamur la moog Bouba n'est-ce pas Pap Dia Oraya aussi ci la bokk mais euh, dafa dafa xaw a tawat moo tax ñëwul tey mais li ngeen gis ni li yëpp marché bee ko waral parce que suñu mënoon dañoo estat regroupement leen di jëlee ba indi leen stade mais comme loolu mun ti am fii lay ñëw wax ak yéen li ñuy wax ak yéen léegi nag ay professionnel ngeen am nañ ci yeen confiance ay Lougatois ngeen yéen ay porté tey flambeau boo yéen a yor flambeau bi tey drapeau Louga bi yéen a ko yor tey en tout cas yéen ko war a hisser de de tey woo mënuma ko man li man man maa ngi koy def mettre leen dans de très bonnes conditions li ma man mooy àndi leen gunge leen di leen ñaax. leen li ngeen mën yéen yéen ko mën ci biir terrain bi yéen ak seen i coach foofu la leen di xaar te jàpp naa ni ni ñu ni ñu conscient ñun ci euh, championnat ren bi ak match dimanche bi surtout yéen aussi noonu la conscient yi ci noonu ngeen ci conscient yee noonu ngeen koy bàyyee xel wàllu aujourd'hui euh, beaucoup de personnalités euh, de la du football lougatois parce que y a des anciens joueurs qui ont eu à gagner le championnat et la coupe du Sénégal ils sont la première journée de la ligue C'est un match à domicile que nous devons gagner, que nous devons impérativement gagner avec l'aide de Dieu. Parce que nous euh, voulons prendre le championnat et pour y arriver, il faut gagner les marches à domicile. Et Dieu a fait que l'année dernière, on était sorti à Pékin. Aujourd'hui, nous le recevons. Donc, euh, on va mettre toutes les, euh, tous les lugares aussi vont vous suivre à travers la télévision, la télévision locale, quand la télévision digitale. Ils vont vous suivre sachez que même s'ils ne sont pas au SAT, ils vous regardent chaque jour, peut dire dans sa tête que tous les lois toi, me soutiennent, donc tout le toi, me donc je vais faire mon mieux pour que le Ndiambour gagne ce match-là. Vous, avez du talent, comme l'a si bien dit tous mes prédécesseurs, donc c'est à vous maintenant de faire la différence. Nous, en tant que dirigeants, nous serons à vos côtés, nous vous assisterons. Et euh, le reste, c'est à vous, à votre, encadrement technique euh, de le faire. Et je suis persuadé que vous êtes conscient, comme les dirigeants aussi, euh, l'ont. Mais comme je dis, nous avons le cadre de La meilleure assistance, les anciens joueurs, les supporters, les dirigeants, les conseils du président. Que Jori fi nek yépp connaissent ñom man dem football Nous ñom ñep nak ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul kon ñoom pare nañ avant même que ñu ñëw fii moo tax ñu accordé pour signer wala resigner pour le Ndiambour donc jour bu ne bu nekk fii kenn ku ne mën na football beneen équipe ñëpp nag la wax ñu fi nekk ñëpp donc aussi si loolu aussi ñu leen si di leen si sant leen si gërëm et jàpp ne nag comme ni ko ñi waxee ñëpp nag que nous sommes prêts quand je dis nous je parle de vous et de staff technique nous sommes prêts pour incha allah rabbi dimanche jouer contre le Pékin et défendre franchement l'école coup Je sais que vous êtes prêts. Les gars, est-ce que vous êtes prêts Non, oui, Est-ce que nous sommes prêts Oui merci beaucoup. salam alaikum. Je suis un dirigeant, déplacement Nous sommes motivés pour euh, Massibine bi ñu jëm ci am ndam inshallah rabbi di wax ni carrément le temps attendu est venu oh, oh, oh. xam nga di wax que ni le temps attendu est venu dimanche la wara don inshallah incha rabbi ñu no Pikine parce que tok nañu yag footballun compétirun comme li arké waxé rek fi bép jour bu fi tok rek bu ñëwé fi pour jéem a jël dara la quoi pour jéem gagner dara ça veut dire que objectif bi ñu doon wax jàpp naa ni war na nek suñu tanki ren war nañ ko mëna indi quoi incha rabbi muy jël muy jël championnat bi

du objectif ñu nous loolu Nous on va être vraiment champion du Sénégal Nous bëgg la gagner coupe Nous, bëgg-bëgg la objectif donc les objectifs sont clairs Nassaran bi tout travail tout comportement doit dépendre du contenu de l'objectif qu'on veut atteindre vous jouez là wax ak technicien ngeen Tahawai. parce que nous danoo war ils m'ont marché sur la langue parce que démb fi dama ni ya yene ngi piki na fi ñew match yi wi lolu dañuy démarrer championnat bi wa piki ndey téléphoné ma nañu dañuy mais si nous voulons gagner, point nous ne sommes pas d'accord n'est-ce pas donc vous voulez gagner vous voulez gagner donc là, nous dañ dans le terrain dans le terrain donc aujourd'hui pour ne pas répéter les morts de morts de wax nous bi danoo attention Comme vous su il faut a jur beneen démarche boo xam chaque jour que je fais vos entraîneurs à commencer par l'entraîneur principal muy asan Mohamed Moussa Ndiaye Matar Zal li ça se recoupe man en tant que chien grand frère Chien doyen parce que tungu ni du teew ñuy N'atal du dëgg man mes footballeurs sont là c'est ce que j'ai encadré Hein? trois fois champion du Sénégal ku ci jëlul ñett yi ñu jël nga ñaar ñi mooy ñi wax muy des gens war nañ leen pourquoi parce que le football dafa xaw doywar. le footballeur dafa am importance du dëgg c'est le pion sur lequel tout le travail de l'entraîneur est axé ñooñu dañ lay nongul te dañ la nong dañ ñoo nonguloon mooy lan amul woon ñiiroo c'était la soumission ngiraan danaan le wala yahya de de c'est le dieu. on on on on siffle tout le monde est là on ne perdait pas du temps du dëgg ñu daan wax loo xam ne man lolo la contre je j'aime pas rêver dans le football. Quelqu'un l'a dit, bon Le Ndjambour a droit de rêver. Non, non, non, non, non, non, non, Parce que Gourgou Bach Ah, ni rêve rêves, sunu la bi il faut le faire il faut le faire la si nous croyez et si vous ne croyez pas pouvoir le faire, nous n'avons aucune chance d'y arriver. Je ne peux plus me tromper dans ce football-là. Je ne peux plus être médiocre. Parce que gagner d'année, ancien joueur, ancienne gloire, la celui qui a été champion du Sénégal, Koko Rombona ancien. Ils ont été tous, une ou deux fois, wala plusieurs fois sélectionné en équipe nationale quelquefois dama suis daan xaar fii fii ba taxaw laa de ah, équipe nationale libéré Nous ñu terrain le public manifesté son contentement Je suis adressé dressé ma liste pour les convoquer le dimanche voilà Je n'ai la un jour j'ai pas fait de causerie c'était contre Wakam j'étais à Kër Serigne Que nous sommes Codé voilà

Il parce que y a des y a des efforts à faire Il y a des courses à faire Il y a de l'intensité à mettre vous pouvez le faire jeune homme vous pouvez le et que tu que les gens seront contents soyez ensemble soyez ensemble équipe de feuilles équipe de une âme quand quand quand la compréhension mutuelle est là il faut que les gens se se connaissent mutuellement loolu moy waral ñu man di et ñu man di pardonner daanaa leen wax fi. mais man maa ngi yéen a nekk su ci yeen kat kan lay ah vous êtes ensemble une famille su ngeen amul problème kan ngeen di amul problème ci dëkk bi ah mais nous nañu am grandeur roue problème bobu ñokoy régler suñu bop. j'ai été très content tout à l'heure parce que je suis là pour observer quand Tafa et Kufour ont prise de gueule. Ils l'ont réglé. Ils l'ont réglé, les deux. quest ce que nous di dulli si ñu wat qui ils vont tirer dans le même sens donc lolo la parce que vous êtes des responsables le footballeur c'est un grand monsieur quand quand quand Macky Sall vient ici Mbolo koy tertu quand le vient ici sauf le coronavirus lay peut-être dans la foule du président il y a un ennemi mais dans la foule du footballeur il n'y a que des admirateurs président de la république vous un tâche par respect Je dañ leen par spontanéité Ça me xam les Nous, C'est ñu que euh, Diallo l'entraîneur du Ndiambour également qui a parlé de euh, la préparation et qui dit être prêt justement ci li nga xamante ni moom euh, match bi contre euh, AS Pikine c'est 26 euh, matchs waaye le premier match est important à Assane Diallo ñu seetaan l'extrait de San Diallo. Ah, wàccaay bi xam nga lu doon àggale rek ñu commencé depuis Gambie def fa quatre matchs waroon au Sénégal pour football fi quelques matchs mais malheureusement match yi ñu au Sénégal amuñu ko benn lañ si am a ko indi bon ay problème adversaire il ko indi parce que bi jouer joué ak Linguère dañ prévoir jouer hmm, Sonakos ñom ñu désisté ñun ñu waron dem samedi jouer Denis Brandaw Ndao bon ñun ñoo désisté parce que à cause di CD Ñambour faut mam comprendre ma le bolé CD équipe buy footballi, bon ñu perdre ko ko suñu responsabilité après mënuñu am adversaire jouer wuñu donc ben match leen fi jouer dana peser mais du du du ki trop dal li gënon moy ñu jouer match yi pour roode parce que xalé yi dañ tok parce que fukki weer joué wuñu bon il fallait ñu jouer jouer jouer jouer pour ñak mëna démarrer bu baax way lool nak du lay quoi na wut nañu benen plan B jouer suñu biir def suñu stratégie yaakaar nan pare nan dal wa dana si handicap la waaye nag po amul ko amul ki namp la nen bon loolu pare waat nan ko mais ay technicien la am nan ay raccourci beneen yoon boobu daal lañ jël pour pare yaakaar nan daan pare dimanche daal mooy leeral lépp daal mais toute façon dimanche benn match la sur 26 mais nag championnat commencé ko gagné dafa am solo baax si ñëpp si moral si ñëpp daal waaw joueurs yi moom ku nekk xam li leen war rek parce que comme def seen li war si ñoom xam nañ li leen xam nañ li leen di xaar jëluñu leen pour jouer figura dañu jël pour jouer les grands rôles ku nekk daal li ñu la war a wax xam nañ ko kooku ñun la bon tey moom vraiment li ñu fekk fii rafet na trop waaye ñun nag ñoo war a fexe ban bañ ko yanu trop ba attan ko xam ni bon am na solo euh, sas nañ leen anciens joueurs yi sas nañ leen dirigeants yi bon ñun ñooy fexe nag ñun techniciens yi loolu suñu liggéey la ba nu eh, attan ko daal. Euh, entraînement les joueurs en euh, jovialité les joueurs en confiance dans leur bus dugg ci bus bi euh, gis ci ambiance neex avec la complicité des joueurs qui applaudissent justement un une ambiance bon enfant les joueurs jovial du Ndiambour qui regagnent comme ça leur camp d'entraînement de regroupement le complexe El Jamor Bongo de Louga. En attendant, le dimanche c'est, 3 euh, janvier 2021 à 16h30 euh, pour leur euh, premier match à domicile face à l'AS Pikine. Moïse Est-ce qu'il peut là. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut là. Est-ce qu'il peut est Oscar est où Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut Ami des présents. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut Bah elle.

Banko Girani, SGIB SGIB Oscar est là, SGIB le petit Souma est là. Waina, waina, waina, waina, waina, waina, waina, waina Nyambur, waina, waina Badu, waina, waina Suma, waina, waina Ndoi Ndoi. وينا وينا خادم وينا وينا خادم وينا وينا بابا وينا وينا خليفة وينا وينا راموس وينا وينا راموس وينا وينا راموس وينا وينا داف داف وينا وينا داف داف وينا وينا داف داف woy naa woy naa ñing woy naa woy naa ñing woy naa woy naa baade woy naa woy Ayala, SK Ibe, SK Ibe, Umar Nyingela, SK Ibe, SK Ibe, Tala Ela, SK Ibe, SK Badu Ebreza, SK Ibe, SK Badu Badu Ebreza. Adéyẹlá SK Ibe e Amúlójókò SK Ibe Ndoye Preza SK Ibe Ndoye Preza e Oscar Ela SK Ibe e Amide Preza <laughs> Yeah. iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Eh eh eh. Iya iya iya. Mama ti mama ti mana. Tapele me. Tapele me. Tapele me. Tapez les pieds. Criez fort. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les pieds. Criez fort. makilila. Yamugeru mode, songo makilila. Songo makilila, ge songo makilila. Nyamu makilila, ge songo makilila. Songo makilila, ge songo makilila. Yamugeru mode, songo makilila. Songo makilila, ge songo makilila. Yamugeru mode, songo makilila. Traore go, songo makilila. Boga go. Oscar ezongo marelia Nico ezongo marelia ezongo marelia Kifuna meni ezongo marelia ezongo marelia Samba marelia Samba marelia

Moïse nana ezango mabelela muskego ezango velira, talago ezango mabelela ezango mabelela lantushab oscar velira, mabelela velira, mabelela ezango ma ezango velira, ezango velira, ezango ya ndamoyago more ezango velira. Isang mamamili na. Isang tambalong. Kaya, kaya. Iyapa, kaya, kaya. Tambalong. Iyapa, kaya, kaya. Tambalong. Iyapa, kaya, kaya. Tambalong. Kaya, kaya. Iyapa, kaya, kaya. Tambalong. Kaya, kaya. Iyapa, kaya, kaya. Tambalong. Kaya, kaya. Iyapa, kaya. ya fa koyo koyo dan ba mu wax ba pare lu mu wax ngeen maam seera faal seexu bamba xaadim rasul borom tuuba ñoo ngi lay ñaan di dellu ñaan yal na ñaan yëpp nangu amiin amiin yaa rabbal aalamiina maam Seera Faal Seexu Bamba Xaadim Rasuul borom Tuuba ñu lay ñaan di dellu ñaan ñaan ñaan yépp nangu amiin amiin yaa rabbal aalamiina maam Seera Seexu Bamba gëng gëng Xaadim Rasuul borom Tuuba gëng gëng u lay di delu ñaan yal na ñaan ñëpp nangu maam 0 Voilà, c'est ça, c'est terminé pour euh, euh, euh, le, la séance d'entraînement du la dernière avant le match contre l'AS ici au stade al de Louga, un match décisif, un match important même si c'est un parmi 26 matchs, c'est un match qu'on doit gagner ici à domicile le dimanche, Inch'Allah, 3 janvier au Salal Brunei de Luga... à partir de 16h30. L'entraînement, gis ko, équipe bi, en tout cas les joueurs très confiants derrière lui, mais, par exemple derrière joueurs les supporters qui sont venus en masse pousser leur équipe, comme à chaque fois, les supporters du Ndiambour qui sont toujours derrière l'équipe, Fagnon, la première, la seule régionale, région la seule en Ligue 1 le de Louga les anciens joueurs du Ndiambour qui sont venus revigorer l'équipe qui sont venus booster les joueurs pour leur dire que am am vous pouvez gagner vous pouvez faire la différence et joueurs yi dégg nañ ko déggewuñ ko ci ku c'est vrai que ah, bah, seen entraînement bi gis et avec tout le staff technique Hassan Diallo l'entraîneur titulaire Waye Ngiraan gis ngeen mi ci woon directeur technique régional Arke Silla le président section football gis Mohamed Mouhamed prophète ah gis également Matawat le préparateur physique le préparateur des gardiens de but ñëpp ñëw nañu autour de l'équipe en tout cas ngir booster l'équipe galvaniser les joueurs xamal leen di et vous avez en tout cas euh, l'opportunité de montrer ici à domicile que vous pouvez le faire et ils vont le faire euh, les joueurs du Ndjambou contre l'ice le ce dimanche inchallah 3 janvier tous derrière l'équipe du Ndiambour Dengue, le coordonnateur du Ndiambour Djibi Diallo qui est venu également la dernière séance d'entraînement pour Wahak Jori, pour xamal leen Nigisen leen ñi ngi le, kanam on va le faire Le plolen def on va le faire on vous demande tout simplement de faire des résultats on vous demande tout simplement de faire en tout cas match bo xamante match bu gagner à domicile l'Ice parce que mën on a vu Assane Diallo également l'entraîneur du Ndiambour gis il est confiant il est prêt à mon plan B plan B bi technique. on attend en tout cas dimanche pour voir ndax li équipe bi dañ ko euh, même si on peut pas juger cette équipe là qui match contre AS Pikine bi mais quand même euh, ñi ngi xaar une victoire une victoire éclatante de de de de de du Ndiambour de Louga parce que ñëpp derrière cette équipe du Ndiambour il faut le dire et c'est l'occasion nous occasion voir. woowaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo tuddee seen ay frondeurs ñi ak ñi nga xamante ni d'accord nu ak ni njàmbur di doxee ñu ngi leen di woo ñu ñëw derrière l'équipe dénominateur commun bi c'est le Ndiambour ñoom am nañu leur pierre en tout cas à apporter ci cette équipe du njàmbur ñu ngi leen di woo ngir ñu ñëw en tout cas ànd ak équipe bi ñëpp nekk derrière l'équipe pour que le Ndiambour aille de l'avant mi ngi noonu Louga TV moo leen jëlaloon élément yi fële ca stade Alboury Ndiaye bu Louga ngir dëgtal leen ko ngir ngeen mën a xam un peu en tout cas la la la l'ambiance l'ambiance wala ñi nga xamante ñoom les joueurs du Ndiambour, est-ce qu'ils sont prêts ou pas moo ñu démalaw leen gis ngeen également ci fin bi le bus du Ndiambour. bi les joueurs qui ont chanté qui ont été trop jovial qui ont été en tout cas euh, dindi stress bi ci ñom et c'est important le psychologue du njàmbur ki nga xamé ni mom moy xol joueurs yi sen ay mentalité xamna ni lolu amna solo et joueurs yi wane nan lolu des chansons des chansons dans le bus des de l'équipe du Ndiambour de Louga joueurs yi nek ben et c'est ça qu'on appelle une équipe ça c'est important pour les résultats du club et les joueurs ont compris cela Bonjour ci bis bi way les Guinéens qui sont venus apporter également leur touche parce que nous avons ci ñun hein. euh, mais mais également ça c'est important merci en tout cas d'avoir suivi c'était euh, Louga TV qui vous a fait le direct Fiti, euh, salle de Louga pour vous faire vivre en tout cas la dernière séance d'entraînement de l'équipe du Ndiambour en attendant le dimanche 3 janvier 2021, 16h30, au stade Albourindia de Louga, tous derrière l'équipe du Ndiambour pour la victoire.